produit bi ñuy dëppee cuir ci ñetti weer bi foofu ci London Metal Exchange dafa daal di yokk ci 0,3 pour cent ci 10 210,50 dollars tonne métrique bi ak it tamit 636 ci GMT gannaaw bañ ko laale ci lu toll 10 255,50 dollars ci biir session boobule contrat bi nga xamante ne moo gagné ci lu toll 19 pour cent depuis. ci ndorteel at mi daañu ko xool ci lu kawe tuuti ci lu tollu 600 dollars ci record bi nga xamante ne moom la ñu xayma ci lu tollu 10 845 dollars mi nga xamante ne ci atum 2022 lañ ko doon xayma naka noone prix bu cuivre boobule ñu gis ni dafa jóg ci anam bu jéggi dayo ci dernier trimestre yi nga xamante ne yooyu la génn ci jamono bi nga xamante ne ñu ngi gis ni am na déficit ci biir marché bu métal rouge bi nga xamante ne ñu ngi ko doon xaarandi ci loole depuis ci juróom benn weer cuivre bi nag dafa performé wu ci marché action américain donte sax ñaari métal yii lée gis nañu ni seeni prix dafa daal di jóg ci lu tollu vingt-sept pour